ab bataaxal wala sax ab communiqué bu expert électoral bii di njagasi la daal di fësal ginnaaw beneen bataaxal bu tukkee si kuréelu attekaay yi féete sa cour suprême Siré Ali Ba jot naa indi ay leeral wala di ab dogal bu yees lu ñeel wala daal di tontu ki nga xam ne mooy avocat Ousmane Sonko yi si mbiru requête bu ñeel wàllu recours en rabat bi war a waral coow li moom expert électoral bi. def ab analyse di ab jàngat ci dossier candidature yi conseil constitutionnel war a artu si ay bés yu néew mu indi tamit ay leeral si article 7 du code électoral moom Ndiaga Sylla di fësal si quelques règlements yi tënkoon wala yu tënk mbiru parenage yi ak njortu blocage yi nar a am si yenn candidature yi moom Ndiaga laa di wax les dossiers incomplets pour absence de l'une des pièces exigées à l'article L 121 di code électoral et les dossiers n'ayant pas obtenu le minimum de parrains requis sont pas pris en compte dans les opérations de contrôle des parrainages et certains candidatures pourraient être rejetées pour ñàkk a motal li nga xam ne moom mooy ay dossiers lu nu mel le cas Ousmane Sonko bi si njëkk di fiche de parrainage bi sa DGE te Sénat yooyu yàbbi si tey caisse de dépôt et de consignation si lu ñeel wàllu rejet caution de paiement de Sonko ay Ayib wala sax arrestation caisse de de dépôt et de consignation war a jébbal moom ay Daffé pour mu daal di compléter ay dossier am si fàttaliku mbiru dépôt candidature yi mu ngi war a tàmbali du 11 au vingt 26 décembre 2023 conformément à la période énoncée par la constitution lu nu mel tax Ndiaga Sylla expert électoral bi di artu ak revenir sur les risques de rejet ginnaaw publication définitive des candidats bi ñuy xaarandi ñi nga xam ne ñoo war a concourir élection présidentielle 2024 moom Ndiaga Sylla di expliquer les candidatures ne remplissant pas les conditions minimales portent préjudice à d'autres plus sérieuses si le système de vérification devait tenir compte de l'ensemble des listes de parrainage antérieures traitées ce fut le cas lors de la, de la dernière présidentielle un risque d'après Ndiaga Sylla d'enregistrer des doublons ginnaaw bataaxal bi mu ngi aar tamit kilifa yi féete sa conseil constitutionnel ñu daal di permettre bépp mandataire wala sax candidat ñu daal di saytu ak gis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 en temps réel.